am mbégte dellu siwaat ak yéen ànd émission du doy émission xel doy émission bu télévision nationale du Sénégal jagleel lepp lo de dafa jëm ci walu wér-gu-yaram tay nak ñom mbégte nek fi ci hôpital dalal jamm di ci dalal euh, docteur Amadou Gaye nek interniste titulaire d'une attestation de formation spécialisée en hépatogastroentérologie nek it euh, présentement au service euh, de médecine interne du centre hospitalier bu national euh, dalal jàmm euh, bi nga xam ne tey service bi ki ko yor mooy le professeur euh, soy bu ndongo docteur ñoo ngi lay nuyu tey am mbégte ci nangul gi nga ñu nangul tey suñu émission bi ñuy nar seq ak yow. jërëjëf Ismaïla maa ngi lay nuyu di nuyu waa askan bi di nuyu képp kuy liggéey ci hôpital dalal jàmm jiitale ko suñu kilifa Moussa Sam Daf directeur hôpital ak sama chef de service le professeur Soy bu ndongo jërëjëf. Euh, tey euh, ci wàllu consultation euh, lan moi li gën a fës ci maanaam lu ñu leen di jàmbat fii. waaw bokk na ci li gën a fës samay consultation wane woon naa ko ñi nga xam dañuy def consultation parce que dañoo am doomu jàngoro hépatite B wala am ay feebaru res. yeneen ñaari jàmbat yi ci gën a fës yi nekk deuxième ak troisième position moi ñi nga xam ne dañuy jàmbat ay problème estomac ay problème mu biir ak ñi nga xam dañuy jàmbat ay problème lu ñuy wax brûlure d'estomac moom lañ koy tënkee donc ci nasaraan dañuy wax dyspepsie ñi nga xam ne seen lekk day yéex a ak reflux ñi nga xam ne dañuy naan léeg day mel day am lu tang jër jóge sen estomac di yéeg ci kalaama nasaral ñuy wax reflux gastro-œsophagien wala pyrosis moy terme technique médical bi ñi gëna utiliser. Hum hum. euh ñu mëna a ci li ngay ne wax estomac. waaw estomac dañuy tënk estomac mooy lépp lu war a jëm ci feebaru estomac wala lépp luy jëm ci li nga xam ne nit ki da koy jàmbat ñu xalaat ni ci estomac bi la bu ñu tënkee jàmbat yi si mën a nekk nit ki day ñëw naan la souvent sama biir day metti mën nga ñëw mu ne la su may lekk day yéex rees wala du ma am appétit bu ma bëggee lekk bu ma tiimee lekk commencé lekk rek damay gaaw suur wala ñu ne la suma ma lekkee ba pare damay sonn damay mel ni dama fër dama sama xel day tey parfois damay wàccu te li ci ëpp sax yi man maay dugal sama baaraam pour ma wàccu parce que estomac bi dafa lekk bi daf cee nekk wàccul nit ki il faut mu vide ko day sentir pesanteur day mel ni biir bi dafa diis loolu ci xeet yi gën a bëri ci jàmbat ci problème estomac lay doon après am na ay signe accessoire ay jàmbat yoo xam ne dafa accessoire nit ki dañ mën na la ne damay géex nit ki mën na leen ne damay yàbbi lu weex nit ki mën na la ne sama biir day jooy damay déglu luy yuuxu te day tiital nit ñi ñi ñenn yi dañu fone seen biir dafa am saan buy yuuxu wala jaan bu yuuxu fekk ngelaw rek moo ci nekk ñenn yi dañ la naan sama biir dafa am ballonnement si sama consultation man gis naa ni ni ma jàppe woon ballonnement bokkul ak ni ko malade yu bëri jàppee man dama jàpp ni ballonnement mooy biir bu funki rek neewi mais am na ay xeetu malade ballonnement dañ ko jàppee mooy yuuxu boobu ñuy dégg sama biir dama am ballonnement yow lan mooy ballonnement ñu ne la day yuuxu di naan guru guru guru fekk ñoom nekk seen biir du gonflé loolu tamit war nañ ci góor góorlu xam lan la malade yi di jàmbat te jël sa temps waxtaan ak ñoom moo may nga gën comprendre donc en général loolu la ñuy jàmbat ci walu estomac des fois dañ leen naan tamit dama euh, damay serré serré bi xeyna lolu ay signe accessoire la parce que lolu du du du du du xel directement ci estomac mais souvent maladie dañ koy rapportel Ya ngi doon wax légui ci gadam. des fois dina am ñuy ñu naan gadam moy rat mhm. mooy

res mi ngi bu ñu tabaski mom lañuy donc rakkolu wextaan bi li bi lu jaune indi daf ko ci estomac bi muy fekk ci ak wextaan bi nga xamné pour participer phénomène de digestion donc pancréas ak foie dañuy participer ci digestion kon ñom ñaar bu ñu da ngay am problème d'indigestion donc da ngay am ay problème estomac butit nak ñoo nek ni butit yu ndaw yi bu ci butit yu mag ñi quoi. Mhm. donc muy nekk benn bu ci nekk ak li muy voilà bu ci nek ak limuy liguey parce que buñu gissé pancréas des sécréter luñu wax suc pancréatique suc pancréatique ñun dañu jàpp ne rek benn euh, produit la rek bu am ay ay euh, ay ay enzyme euh, yi ay xétu euh, produit la yo xamné dañuy bokk ci li tas vitamine parce que. vitamines yi dañuy tëkkalonte nekk ay chaînes. Mhm. tey chaîne pour nga xëcc ko dafa compliqué day gudd mais chaîne bi nag boo koy dagg di génne élément par élément dangay ngay détaché vitamines yi après vitamines yi dañuy dugg ci sa deret bu duggee ci sa deret organe bu nekk li mu ci soxla mu daal di koy jël ba tax na des fois dañu am ay xeetu feebar yoo xam ne yoonu waxtaan bi day fat fattu mhm. yoonu waxtaan bi day fattu fii su fattoo fii pancréas bi lu muy génne du dem loolu day reflé ci pancréas bi su reflé ci mom mom day fièvre bu fièvre nga am ay problème estomac sama biir day metti buma ma du yéex ñu naan ulcère wala estomac fekk pancréas bi mo fièvre mais euh, tay ñu dégg ci wax ji manam ulcère euh, tay lan moy ulcère euh, docteur. waaw ulcère bu ñu bëggee xam ulcère dañu japp ni ulcère xétu gomme? la xétu góom bo bon euh, c'est vrai que buñu néwé ulcère góom bi mën na fété fu nek waye buñu néwé ulcère gastrique moy gomme buy fété ci estomac donc gomme bu fété ci estomac estomac mi ngi nii góom bi nag dafa am xóotaay niveau xóotaay bi dafa am solo pour ñu wax ulcère oh. dañu japp ni déjà gomme bi xóot suffisamment pour que ñu ne ulcère la ulcère nak bu nekké ci estomac dafa am ay conditions ay facteurs favorisants lo xamné mëna indi ulcère li indi ulcère amna ay xeetu garab yu ñu wax ay anti inflammatoire bari na ay doomu aadama sen digg day metti sen articulation di metti ñu dem ñu bind leen ay anti inflammatoire bi gën a siiw ñu xam ko moy ibuprofène boy faral di nan ibuprofène mën na nekk facteur déclenchant wala facteur buy favoriser ulcère gis nañuy tox cigarette day favoriser ulcère gis nañu ni que euh, nit ñi bu dee dañoo stressé lu bëri mën nañu am ulcère boo nekkee ci fitna sa liggéey bëri say xalaat bëri loolu mën na déclencher ulcère loolu ay facteur ulcérogène lañu mais am na benn facteur boo xam ne moom moo euh, prise en charge ulcère feeñ na ci fanweeri at yi ñu génn jëm ñeent fukki at yi ñu génn mooy doomu jàngoro doomu jàngoro boo xam pour la première fois il y a 40 ans ñu xam ne benn doomu jàngoro mooy déclenché moy facteur bi gëna am solo ci ulcère ñukoy tuddé tuddee Helicobacter pylori mom moy facteur ulcérogène essentiel bo jëlé population européenne en général 35 à 40 de la population européenne a une ulcère dañu gis ci Helicobacter pylori boo en Afrique ak une réalité socioculturelle un mode de vie euh, environ 70 à 80 de la population générale mais ci études du prévalence est de 60 de la population générale ulcère aussi en plus de Helicobacter pylori boobu dafa am ay conditions yàlla dafa def estomac dafa am sécrétion acide acide dafa fort acide tey boo ko ci bant day lakk bant bi mais dosage acidité bi ci estomac en temps normal yàlla dafa def ni estomac mën na supporter mais en même temps loo gis am na lu koy neutraliser tey bu acide bëree ndox mi bëri day neutraliser effet acide bi am na beneen sécrétion ci estomac buñ wax mucus mucus moy xaw neutraliser acide bi yalla mi nga xamne moñu défar dafa def en temps normal sécrétion acide ak sécrétion mucus dañu nek au même niveau mu am équilibre donc acidité bi du manifester ou du créer dara légui nak bu da nga am hyperacidité sa sécrétion acide bu dee dafa wala sécrétion mucus bi nga xamné dafa wàññeeku bi nga xamné moy neutraliser acide bi y'a nga créer condition acide di bëri ci sa estomac di lakk nank nank légui yeneen facteur yi ñu waxtaanee sànq ay anti inflammatoire buñ ci bokké ay anti inflammatoire non stéroïdiens comme ibuprofène wala ngay tox wala ngay jël alcool wala helicobacter pylori day gëna accélérer phénomène bi tax nit ki am gom muy ulcère ulcère gastrique la nuit faral di wax mais souvent di ngeen dégg ñu naan ulcère duodénal mhm. ulcère bulbaire souvent dañ koy tënk rek ci estomac ulcère gastrique mais en réalité estomac bi li ko dalee fii la ba ni mu jeexee fii mhm. bu yemee fii nag ñoo ci première partie butidi yi ñoom la ñuy tuddee duodénum léeg ulcère ci segment bii la ëpp lu muy nekk léeg estomac bi. Mhm. donc ulcère duodénal beaucoup ulcère gastrique mais ñun dañ koy yombalal ci discussion ak suñuy malade. les mhm. les da ngay rek la ulcère gastrique rek moom nga am mais sachant que en terme de prise en charge ci toppatoo. Mhm. ñun docteurs yi xam nañ ni ñu war ulcère gastrique beaucoup ak ni ñu wara a ulcère duodénal. euh ñaari mom euh, noko mëna mën lu leen di euh déjà ci melo amul lu leen di parce que pour ñu faire ni am nga ulcère il faut ñu de la fibroscopie mhm. il faut ñu de la fibroscopie fibroscopie appareil bi mhm. appareil de fibroscopie digestive le mhm. racole le bu ñuy duggal ci sa estomac dem muy filmer ñu projeté ko ci écran ñu gis directement ulcère y mais ñaari différence essentielle la ñu xam moy ulcère bu nek ci duodenum da ci walu médecine dañuy ne du cicatrice manam du joxé cancer mhm. alors que ulcère de l'estomac a une possibilité mu transformer en cancer donc ulcère duodénal dafa war a ulcère de l'estomac a un risque mu évoluer vers un cancer différence fondamentale pour moi, am kon lo xamni ne cancer mais ni ko wara am full, da fa wara en tout cas vigilance que ni ngay toppatee ulcère duodénal mais en termes de mécanisme vraiment de genèse lu ci ëpp ñom ñoko bokk. mais euh, donc, bu ma la déggee kon euh, manam ulcère amna jafé jafé yu mëna bien sûr ulcère amna ay complications yu mu mën jur cancer bi ma wax. moo ci muju mhm. surtout au niveau de l'estomac mais ulcère mëna indi complication yu yoo xam ne nit ki day dem ba day wàccu deret parce que bu dee ulcère bi dafa jege siddit bu am solo doomu jàngoro bi di lekku wala ulcère bi di lekku mais day dem ba si siddit boobu daf daf koy laal foofu day am inflammation te siddit yi nga xam ne dañoo nekk ci zone bu am inflammation siddit yooyu dañuy oyof dañuy jékki-jékki rek dagg nàcc te képp kuy nàcc deret loolu extrême urgence la bu la yàlla jàppalewul coordination prise en charge urgence am mën na si ñàkk sa bakkan loolu complication la am na ulcère yoo xam ne nit ki day am ulcère ba ulcère bi wér du ko mais ulcère bi di dem di dik di dem di dik ba créer phénomène inflammation bo xam day am lu wax gang inflammatoire gang comme phénomène de fibrose manam day dem ba day wow mhm. mais bo jëlee yap ñëpp xam nañu mbaq estomac mhm. da ngay xëcc dafa am ben niveau

complication wu ulcère la bokk. lan ngay nit di yëg ba xam ne man mii kat lii bu dul ulcère it jege na ko. waaw nit mënul xam à cent pour cent ndax am na ulcère jàmbat bi nga xam ne la nit mën na jàmbat pour ñu soupçonner ulcère mi ngi jëm ci mettit ñu si ëpp dañuy naan sama fii day metti sama saatu dënn mm-hmm. walla dënn bi yax bi féete ci dënn fi mu jeexee ah foofu nit ki da koy jàmbat souvent sax day désigner ben point mhm. ne le sama fii day donc lolu mo gën feus té mhm. te mettitu ulcère dafa am ay ay facteur yu renvoie ci ulcère mhm. bo lekkee lu wex wala nga lekk lu saf wala nga xif ulcère bi day dekki parce que bo imaginer nga am gomme té bo lekul sa estomac day am hyper day am sécrétion acide acidité bi day nekk foofu. bu laalee góom bi. góom bi dafay saf. looy gën a nekk à jeun sa acidité day mel ni day yokk day laal góom bi déclenché ko donc leneen loo lekk lu saf da ngay sentir mettit. parfois métti la boo xam ne daf lay yee par guddi. en dañoo jàpp lu yee malade guddi rek am na solo wan nañ ko gëstu. parce que yàlla daf ñoo defaree noo xam ni bëccëg dañuy liggéey. Goudi, dañuy noppaliku. non la defalee organes yi ñuy liggéey bëccëg di noppaliku goudi donc bo yé goudi am lu lay metti alerte la fièvre la dañ ko explorer jusqu'à preuve du contraire donc ulcère day yee malade goudi. donc dafa am phénomène rapport ak lekk yi bo xifé mën na metti bo lekkee lu saf mën na metti yeneen signe nak yu ci ëpp yépp ay contingent de signes accessoires. accessoire yoo xam ne c'est pas des signes spécifiques. à l'ulcère mooy signe yoo xam ne mën nañ ne lii ulcère la lenn mooy tax ñu ne am nga ulcère mooy gannaaw bi nga jàmbatee luy tax ñu yaakaar ni am nga ulcère même booy lekk mu yéex a rees mën na nekk ulcère mooy ñu defal la fibroscopie osso gastro duodénal ak appareil bu ñuy wax fibroscopie ñun hôpital Dalal Jàmm am nañ ci caméra la day filmer bu ñu ko dugalee sa estomac dem ba ci biir day filmer yëpp bu ñu gisee ulcère bi day leer nañ lampe bi bu duggé day leeral ci biir estomac bi. ñuy mhm. dafa mel ne bi ñu ko léegi nga ngi gis li nga xamné mo ci né donc waaw day filmer bu filmer ñu projeté ko ci écran bi mën nañ ko régler ba mu gëna a leer kon bu ñu tiimee sa estomac lu fa nek rek day feeñ dañ koy euh, xam donc li moy confirmer la présence d'un ulcère wala déet ñu ne kat li nga doon jàmbat lii moo ko indi. Mhm. buñ la defalee fibroscopie. gisuñu ulcère dinañ xam leneen lu bokk ak ulcère luy indi li ngay jàmbat. Mhm. Euh, mais traitement bi nu muy tëddee. waaw traitement ulcère d'abord dañuy euh, xam lan moo indi ulcère bi. cause bi d'abord ñu mën ko faj. Mhm. cause bi am na ci traitement bu dee Helicobacter pylori doomu jàngoro boobu la am na ay protocole yu ñu war a appliquer am na ay xeetu garab yoo xam ne tamit ulcère boo mënta am rek. Mhm. dañ la koy jox. daf cee gaaw. ay xeetu garab la yu bees ndeysaan yu ñu ay inhibiteur de la pompe à proton. inhibiteur de la pompe à proton day wàññi sa sécrétion acide. parce que hyperacidité bi day favoriser ulcère bi ci nekk tête de fil, moi, oméprazole nit ñi xëy commence ñu koy commencé xam comme ni ñu xamee paracétamol ak amoxicilline. Ni am problème estomac ñoo la gën a xam léegi lan mooy oméprazole dañ leen naan demoon naa bërëb sàngam nañ ma oméprazole jël naa ko donc loolu day cicatriser l'ulcère, ulcère mais cause bi facteur favorisant bi buñ ko dindiwul ulcère bi day récidiver bokk na ci doomu jàngoro bi hélicobacter pylori comme doomu jàngoro la xam nañ ay xeetu antibiotique yoo xam ne bu ñu leen bubalee da koy rey éliminer cause bi ulcère bi wér bokk na ci facteur favorisant bu dee da ngay tox sa euh, tabac bi day yéexal cicatrisation ulcère bi bu dee da ngay jël alcool tamit day la cicatrisation ulcère bi bu dee da nga doon jël ay anti inflammatoire anti inflammatoire yooyu tamit dañ leen a war a arrêté am na tamit yeneen cause ulcère yu rare des fois du ñu xam sax cause parce que lu ñu la defal ci recherche du ñu trouver cause bi peut-être enquête bi moo mais du tee garab yooyu wax améprazole buñ la ko joxee da koy cicatriser lo bo xamul cause bi nak da nga wara contrôler par fibroscopie xol ndax ulcère bi du ñëwaat wala dina ñëwaat selon que mu nekk ci estomac bi wala mu nekk ci duodénum bi pour éviter phénomène de cancérisation. Mhm. Euh, ñuy dégg euh, euh, docteur li ngeen di tuddee yéen brûlure d'estomac luñ ci mën a jàpp maanaam dañ lañuy dégg ñu ne man kat dama amee li ñuy wax brûlure d'estomac waaw c'est vrai bulle wax reflux gastro-œsophagien reflux gastro-œsophagien mooy loo xam ne day jóge ci estomac bi dem ci baat bi dem ci œsophage bi donc estomac dafa am liquide am mucus am acide mucus ak acide dañuy neutraliser tenté bu nek day équilibré moroomam ba acidité bi du saf de trop mucus bi du saf de trop bu ci nek am nga rôle booy jouer rôle de défense bactérienne mm-hmm. amna yag yàgg nañu yaakaar ni benn microbe mënul dund ci estomac parce que estomac dafa am acide té acide ci lu dal dalay mm-hmm. mais yalla def na ni ben micro lañu ñu ràññee muy Helicobacter pylori nekkate mën na dund ci acidité comme ñi nga xamné ci religion révélée yi jangal nañ leen ay euh, yonent yoo xam ne dugal nañ leen ci safara yalla def lakkuñu mm-hmm. donc hyperacidité bobu lélé day yéeg sécrétion acide bobu day yéeg mais yalla dafa def ci œsophage dafa am ay barrières. bo léké ba paré bu lekk bi wàccee fi day fermer wu complètement moo nekk nii pour do am remonter. parfois li nga xamné ne nag moo koy fermé day lâché wu fi toujours day ibéku donc remonter bi yéeg parfois nak nit mën nga am remonter normal mais ay ben yoon par ñaari wèr par ñetti wèr mais boo demee ba remontée bi bëri nak loolu dañ koy considérer comme fièvre reflux gastro-œsophagien wala pyrosis. reflux nak moy bu dee malade bi nit ki yegna lak lak ci ginnaw yax bi moy euh euh yax bi nek ci kanamu dëndam. Mhm. mu koy yëg lak lak bi melni ni day yéeg ba ci baat bi ba ci put bi mu melni gal chez les nourrissons lire day gal di yàbbi mais bu dee mag.

sa dënn di metti ba ñu da am crise cardiaque sa nooy am jafe-jafe ba melni da nga am asthme loolu lañu wax les signes extra digestif du reflux gastro-œsophagien léeg-léeg nit dënnam dina metti dem ci cardiologue c'est tout à fait normal dënnam di rire ba ñu foog dafa am asthme mu dem ci pneumologue c'est tout à fait normal ba pare ñooñu def ay exploration duñu trouver dara souvent dañuy am réflexe ne la demal si gastro mu interroger souvent dañuy gis ni dafa ànd ak phénomène de reflux gastro-œsophagien lu ci bari nak reflux yoyu day dal mais amna yo xamné dafa invalidant day sonnal doomu aadama yi de trop. Mhm. ba day altérer sen qualité de vie. Mhm. donc yoyu souvent dañ koy euh, gis ci suñuy consultation. Mhm. Euh, tey euh, manam ci il ulcère tay bu amone conseil yan conseil lay don bon buñu amé conseil pour nit ñi. Euh, seen ulcère ñu bañ ko am déjà lu jëm ci walu helicobacter pylori mëno d'avance wax nit ki am na Helicobacter pylori te war ñu rechercher helicobacter pylori à tout venant. Mhm. ñu ku ñëw rek ñu sétal la hélicobacter pylori. lolu ben la donc facteur bobu côté bobu pour ñu agir ci du yomb lu dul nga am loy jàmbat ñu defal la fibroscopie ñu am ay prélèvements yu ñu def pour dal koy seet mais nañu xam anti inflammatoire yi. Euh, buñ koy faral di naan nañu xam ci yan condition lañ ko waral di naanee dañ koy naan que quand c'est essentiel bokk na ci nag ay phénomène d'automédication day tax ñu ñu koy naan ci ay indication yu erroné docteur bi lay faj di la bindal anti-inflammatoire war na xam yan mesure d'accompagnement moom la war a jël pour mu bañ la déclencher ulcère nit ñi nañu bàyyi tox nit ñi nañu bàyyi naan sàngara en tout cas ci wàllu wér-gu-yaram euh, duñ ko

facteur de risque cardiovasculaire là. léegi nag li des nag boo amee ay mettit demal ci ñi la war a faj mu ñu ne malade yi demal les ñëpp dem ci ay gastro-entérologue mhm. mais euh, suñu système de santé war na plus performant pour ñu rendre accessible fibroscopie à tous les niveaux fi mu ne région yi nga xam ne am nañ fibroscopie bëriwul ak d'endoscopie digestive yi am des régions dina am yenn région yu koy parce que mom rek moo meuna def diagnostic de certitude ulcère té surtout boudé ci estomac bi ñu gën la topato pour ñu ñu prévenir cancer donc une bonne hygiène de vie meuna dimbali nit ki risque pour mu am cancer wañé ko tay bo doon tej yeen kaddu ngay tejé waaw ma ngi euh, jaajëfal wa RTS yeen ñi déplacer di ma fekk ci di jaajeufal wa askan bi ñi nga xamné ñi ñu ñuy di jaajëfal sama wa hôpital kilifa ñi condition pour mu def li limay moy ak système de santé war nañu évalué xel population bi euh, dama ni évaluer système de santé ci domaine bu mu mënta euh, de façon globale ci di waxtaan ministère yem seen biir di waxtan ministère ak ñun wa hôpital ñuy waxtan ñun hôpital ñun donc suñu biir waxtan war nañu gorgol ci lepp lu ñuy jël ay décision ñu jël malade yi ak ñi and ak malade yi ci système de santé jëm kanam. jërëjëf euh, docteur euh, Ahmadou Gaye interniste titulaire euh, d'une association de formation. Euh, spécialisé en hépatogastro-entérologie euh, présentement au service médecine interne du euh, centre hospitalier bu hôpital Dalal ci le professeur Ndongo docteur formation en gestion des services de santé option euh, programme de santé euh, docteur ñoo ngi lay gërëm di gërëm suñu mbokk yi ñu doon seetaan di leen jox euh, beneen di daje ci beneen numéro xel du doy jërë ngeen jëf